asalaamaaleykum mbokk internetu 11 news tey jii nag xam ngeen ni li nga xam ne moom mooy nag xibaar yi du dara lu dul nag euh, manifestation yi nga xam mi ngi am si Dakar ak Sénégal maanaam euh, fukki régions yi ak ñeent yëpp euh, muy manifestation yi nga xam ni ñu bare jàpp nañu ay pro ñoom ñoo koy def wala bokk opposition bi ak société civile ñoom ñoo lëkkaloo pour mën a nag xeex seen droit wala bokk li nga xam ni tey moom mooy seen àq ak yelleef waaye li ñu nemmiku moom mooy si manifestation yooyu nag tey jii la ñuy euh, muy rek ay Auchan ak li moom mooy ay Total ak yenn boutique ba si yenn banque yi nga xam ni tey jii euh, ñu ngi koy toj ba si yenn kër si ñi nga xam ñooy nag euh, nekk si li nga xam moom mooy gouvernement bi wala fare gouvernement bi mu mel ne tey jii loolu doon na lu doy waar liñ si nemmiku nag si manifestation yi nag taal yi bëri na yàq gi bëri na dëgg la naam xeex bi ak ñi nga xam ñoom ñooy armée bi wala bokk ak ñi yor sunu karange muy gendarmerie ba si police nemmiku nañ ko waaye tamit li ñu gën a nemmiku nag te mu jaaxal ñëpp nag moom mooy ñi gàmm ak ñi ras dem bokkuñu euh, tey jii ñi si rax ni te bokkuñu si muy rek ay samba booy boy mën buñ ko mën a waxee noonu euh, mooy ñi nga xam ne jii dañ si dugg euh, ñi yor ay arme blanche maanaam ay jaase ki paaka di agressé en même temps waaye ba si ñoom ñooy jiite sax li nga xam moom mooy ubbi gi si li nga xam moom mooy boutique yooyu ñuy piller wala banque yooyu ñu xam ñu ngi leen di piller waaye yamuñu si loolu également ñi nga xam tam ñu ngi leen nemmiku dañu am nekk si manifestant yi rax si te yor ay fet rafetal également tamit ñu soupçonné leen ba jàpp nañu tey jii li nga xam ni moom la ministre de l' intérieur wax di Antoine Félix Diome euh, wax ko démb euh, mu doon li nga xam tamit euh, ñu bare rafetlu wuñu ko waaye ñoom dinañu am léeg-léeg ay information yi nga xam ni ñun duñ ko am wala boog population bi duñ ko am na mu ko waxee ndax war na ko waxee na mu ko waxee ndax baax na loolu moom leneen la waaye je pense que tamit li ñu mën a taxaw seetlu wala bokk li nga xam moom la ñuy yaakaar ni moom la manifestant war a sécuriser li ñuy def ba kenn du leen rax euh, ba ku leen rax rek ñu mën ko dénoncer waaye ñu mën ko génni euh, si seen euh, biir yaakaar nañu ne Sénégal benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar li am solo également loolu li nga xam ñu ngi koy yàq di ko piller maanaam muy Auchan yi muy Total yi nga xam ne ay sénégalais ñoo ko moom wala bokk ay sénégalais sax ñoo siy liggéey mu doon li nga xam tamit lu mat a bàyyi xel la ak fi réew mi toll fi mbas mi toll Sénégal économie bi daanaka dafa nërmeelu kon nag defe naa buñ si yokkee li nga xam moom mooy di yàq day a mi gën a metti si ñi nga xam ni tamit ñoom ñooy euh, bi li ñu mën a nemmiku euh, li nga xam mooy manifestation yi si Dakar ak li ko wër bare na tànk yi nga xam ni dañ leen di si li nga xam moom mooy fuul bi ay ñuy sànnante xeer ak way takkandeer yi mu doon rek lu doy waar manifestation yu demee ni euh, xale yi amuñu si yoon na ami internet bu ngeen amee seetlu tey sax si suba si réseaux sociaux yi également am na ay vidéo yuy circuler ñu wane ni également tam dafa am ay ministre maanaam tey ji ñi nga xam dañu fare si ñi nga xam ni mooy nguur gi ay yore ay fetal ñoom it euh, di tirer si population bi yooyu yëpp ñu ngi koy gis si réseaux sociaux yi dëgg la am déet ay ministre la wala ñu fare la si ñi nga xam moom mooy nag euh, guvernement bi am déet loolu yëpp ça reste à vérifier mais en tout cas li ñu war a bàyyi xel mooy li nga xam ni moom mooy réew mi muy rek jàmm jàmm si la lépp xàcc kon nag defe naa ni Sénégal benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar kon nag nañ ko waxtaanee ndax ay boo gis si waxtaan lay mujjee